la la la la la la la la la fa la la la la la ilaha la la la ilaha la la fa la la léegi jërëjëf. waaw waaw ak ko ma wax ni bi ala Ibrahima Dia xool wallaay des ak ak yoonu wut wi na nga lu ko gën a teel tu lesi bi daan ñëw waaw fukki at nanga bépp nag dëgg la mosuñu fee ñëw suba mbaa démb tey ji laan ñëw kat sama yaa loo ko da laa yokkal te lam doon defi nag waaw naa si naa wax waaw woo na ma ne la ñuy ne fii ku nekk mhm. war war ngeen dégg kàddoom. dëgg la Fall. ndax fi mu ne ñëpp fi waroon ne. Mm-hmm. fi ngeen nekk yéen. kon ku la nekk si foo xam ne yaa waroon ne. Mm-hmm. bis boo xëyee. Mm-hmm. na sa baat dugg na na sa la na sa la muy wax. mu dugg ci noppam. dëgg la Fall. parce que jëlee dafa nekk. kii doon ko fa ay. wallaahi Fall. moom xam xam xamal ngeen ko seen bopp. kii moom fa mu nekk. ñëpp la fa nekkal. waaw. sama yaay noonu lu jot la am yaa koy dégg. waaw mi ngi koy dégg baax mi ngi koy dégg baax. waaw sa doom ji fa lépp la fa nekkal. ñëpp la fa nekkal. moom moom si fa ba mu xëyee tey jii. xam nga bërki dem demoon na ca rob ba. taxawee ko. ba noppee moo la waxal. ba mu xëyee bu daal aw nag ak la mu war a ànd lépp. waaw yónni nu ko ci. mu dellu xëy te mm-hmm. ànd ak li mu am dem. waaw loolu nag dara mënu koo gën a rafet lu rafet rek waaye dara gën rafet si wàllu. yaa ngi déglu. waaw yéen itam li ngeen laxas tuddee ko. Mm-hmm. daa gore daa xam ne moom ngeen bis mu ne mu wax lu ci aw laa mi ma wax yéen bis mu ne wax naa yéen tuuti fan mm-hmm. ba woon na ma liggéey ba wane ma ko ne nu mm-hmm. bëgg ci mbég si ma xëy ka ci bëgg ne am na ci wuutu ne seen wax si yéen kon noo ñaan ak yàggam moom suñu jëriñ ji waaye nga yàgg fi yow mi jëriñu la di jëriñu jëriñam xolam sedd gi ñi doon liggéey liggéey bi mm-hmm. nii doo nga ko bëggoon defaat gi ku ne xam ne bi nga toogee ki fi ke toogoon daa doon lépp daa doon lépp mhm. waaye itam ba toogee doon li nga lépp mhm. yeesal nga lépp mhm. loolu ci ci sa loxol ko suñu ba mu jaarale noo ñaan na loolu yàgg. amiin amiin Fall mur bëgg defal la ko. amiin Fall loo man bëgg rek moom war ñaar waaye def gi moom. amiin loo bëgg suñu ko may dana def. amiin Fall amiin nga ñaar sa doom ji nga xam mm-hmm. bëgg la am. mu ah. yoonu maam yi jëm kanam. Ah, waaw jëm na kanam yoonu moom ku bëgg mu jëm kanam yaa jëm kanam. Mm-hmm. kenn mënu ko tee kanam ndax yoon yoon bëgg mu jëm kanam. Mm-hmm. te yoon jëm na kanam ba noppi kon ku bëgg mu jëm kanam faaw nga jëm kanam yow. waaw lépp lépp sëñ moom dama taa ko. moo ko def waaw ko àggale. waaw ko àggale su ko jàppee. waaw ko jàppee dinañ jàpp su waxtu asamaan sete. waaw bi dana woote. waaw si turu Serigne Fallou. waaw wax ma ne ma. Ah. yéen kat yéen nekkal foofee. fu fa. Ah. kon kon waxtu bu nu xëyee. war na noo laaj. nu sëñ nu sëñ bi fanaane bu ngooneen mu woote laaj lu sëñ bi yendoo waaw waaw waaw boole ko euh, waaw loolu nag moom ma maa ngi koy seere si kanam sëñ bi waaw waaw seere si ñoom ñoom tuuti nañ si waaw bismillah ne ko nag waaw woote bi mu woote ngir maam waaw nee na woote bi nga woote ngir sa maam hmm. woote ko sallallahu alayhi wa sallam wooteel ko sallallahu alayhi wa sallam wuy wuy si nañu si nee na wuy si nañ si ah, ànd ak njabootu Cheikh Rafal gépp nag ànd ak njabootu maam Cheikh Rafal gépp kon no ñaan nga yag no wo kon ñi ngi ñaan nga yag wo yag la nu yag la ah, barke borom bis bi nak barke borom bis bi nak na la fi gëna yagal na la fi gëna yagal te wëral la te wëral la amin man la li nga bëgg lepp man la li nga bëgg lepp ba nga defal ko sa mam ba nga defal ko sa mam ten and ko yow ten and ko yow jërëjëfal jërëjëfal jërëjëf man sëkk faal ci faal ci xet gi waaw c'est blay faal mu sey mërëm sa waaw c'est ko faal faal mu mërëm sa waaw ñu ñu and ak sëriñ bi waaw ala jërëm ala jërëm lu ma ngi ni sëñ Modou Fall mi nga xam ne mooy mooy taawu kër gi may dem. waaw mooy mooy mag ci waa kër si wàllu. waaw waaw sëñ Modou Tall waaw waaw waaw waaw sëñ Modou Mbale. waaw sëñ Modou Mbale. waaw sëñ Fallou la. taawu Serigne Fallou. Serigne Fallou Mbale. waaw waaw waaw sëñ Abdoulaye ak El Hadj Ibrahima ak Serigne Fallou Cheikh mu Serigne Cheikh Khady Gueye moom ma nga nee toog. waaw ah, moom la sëñ bi jottali ak mbiram. waaw waaw waaw. nee na si njëriñu la yéen a yaatal ba mel nii. waaw waaw. ana góor yàlla ñu jàmbaar lañ lool Fall te taxul nu bàyyi kat ñu ngi si ba tey waaw ah, waaw ñu ngi si ba tey defal ah, waaw ñu ngi si ba tey waaw yaay am wax ndax yaay jëriñ yoon ay waxal ah, waaw sa jëriñ ci lay xam waxal noonu baax jërëjëf Fall jërëjëf Fall non non ci moom bi waaw waaw moom de moom ndax sëñ bi la doon nekk fii waaw ba tey daal waaw man mu ne day nekk day nekk sëñ ba mu egsi rek waaw la kay def kay bi doom fa far ngay war ñu ndax borom kurus gi waaw waaw ya xay yàlla bu ma di ngay wér jërëjëf Fall waaw jërëjëf ko Fall amin Fall sëñ baa ngi ñaan bisimilah sëñ baa ngi ñaan tàllal leen sëñ baa ngi ñaan amin amin amin amin amin amin amin amin iya, amin Fall jërëjëf jepal, jërëjëf jepal, jërëjëf jepal, amin Fall iya, la ilaha illallah ngir ngeen di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fii ci seen seen Darou Bairé TV da ngay bës fii ñu bind sabonné ba noppee nga teg ci kolos bi. La ilaha illallah. Darou Bayrefal TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de Mam Cheikh Ibrahim Fall.